أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أهي صحابك وسريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من أمسات سياتين وأعوذ بك ربي أن يحضروني اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد nabil ummihi wa ala alihi wa sahbi wa xaddimi wa sallama tasliman barki borom Tuubaa mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziyaara di leen euh, dalal ci seen télévision Touba TV ci palaato spécial yi nga xam ni des fois ñu ànd kook yéen ci euh, njabootuk sëriñ bi ku ci nekk ak dundam ñu fas yéene ko jàngat waxtaane ko waaye di jiital ci nuyoo bi ak ziyaara bi moom doon Mouhamadul Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te wér saa su ne dañ koy faral di wax sag la ci àddina bi yëpp rawatina réew mi ñu ne muy réewum Sénégal rawatina nag jullit ñi rawatina yoon wii di yoonu murit yàlla na fi yàgg loolu te noonu lañ koy ñaanalee mboolem njabatug sëriñ bi nga xam ne ñu ngi ci ginnaawam di ziyaare bu baax téléspectateurs yi baaxoo ànd ak ñun di ci jiital ki nga xam ni mooy Euh, suñu waajur yi nga xam ni mooy borom kër gi di alaaji Mbàkke yu fay nga xam ni suba ak ngoon bëtam a ngi ci télévision bi ngir di xool lii nga xam ne ñu ngi ko ciy jàllale te muy jóge ci sëriñ bi di ziare sëriñ Seex Balla Sàmb ak mboolem ñi nga xam ne ñooy kilifa kër gi sëñ Jibril Ndaw <coughs> sëñ Mbàkke Mbuuj ak mboolem ñi nga xam ne ñoo fi ne di yu baax sëñ Dame Guèye mu nekk ci régie bi ànd ak ñun sëñ pap seex Bey sëñ Atoumane ñoom lañ fas yéene àndal tey liggéey bi waaye di fas dalal tey ñu am solo ñooñu mooy ñan mooy njabootu Serigne Alioune Ndiaye gere mi nga xam ni euh, ñëpp dégg nañ aw turam ñu bareet xam nañ ko ñi ko xamut it dégg nañ aw turam mu ne woon jàmbaari sëñ Tuubaa joo xam ni yaakaar naa ak dundam akub liggéeyam danañ gën a xam kan ñu fas ci andak suñu wëllëre suñu xarit di borom xam-xam bu mag nek fi ci télé bi di fi liggéey muy sëñ Ablaye Diop Bisri di ku bax koo xam ne yaakaar naa àllarba ju jot <clears throat> di ngeen ko gis mok sëñ am ñu nek ci émission bobu nga xamni ne kenn du sëñ Touba muy émission bu am solo bo xamni ne bi yépp dañ koy bàyyi xel danga koy nuyu bax diko di mu dem nak sëñ mam Serigne ndjay mu bax mii nga xamni momit mi ngi tok ci plateau bi and ak ñun di ziaré bax sëñi dali mi nga xam ni moo ñu féete suñu loxol càmmoñ waaye di ziyaar bu baax sëñ Ahmed mi nga xam ni mën nañu wax ni muy kilifa ak jotaay bi nga xam ni buñ ko tuddee euh, mën nañu wax ni jaratul ñuy tudd kenn ci ndigalul Serigne Modou njaay mi nga xam ni mooy xalifa bi la fi teewe teewaaleel fi mboolem njabootug suñu Alioune gépp kon noo koy nuyu di jël nuyoo yëpp di ko teg ci loxoom mu jot jottaluñ na ko mboolem àdduna si ak yoon wi nga xam ni ñu ngi jàkkaarloo ñun di ñu ko defee dañ leen di bàyyi rek ñu nuyoo bu ñu nuyoo ba noppi nag ñu dellu ci régie bi daal di am tuuti benn biographie bu ñu def ci dundu sëñ Aliou Ndiaye xool ko tuuti door a dellusiwaat tàmbali li nga xamante ni mooy waxtaan bi sunu mbokki jànkatu xasaay yi di tamit sëñ Ousseynou Wade wax nañ ne mi ngi fi ak sëriñ Saliou Seck Raaya di suñu rakk di suñu xarit ñoom it dinañ yëkkati xaside yi ci biir li nga xamante ni mooy euh, plateau bi incha allahu rabbi kon euh, dañuy bàyyi sëriñ bi mu def ñaan sëñ Ablaye daldi di daal di daal di ubbi la nga xam ne mooy bi Ahmad waaw <laughs> amin ya rabbi jërëjëf Ndiaye kon sëñ Ablaye ñu bàyyi la nga nuyoog euh, mbokki taalibe yi jàkkaarloo yow bisimilah. aouzu billahi min ashaytaani rajim. bismillahi rahmaani rahim. alhamdulillahi allazi qaala fi muhkami tanzil. من المؤمنين رجال صدقوا ما أعد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد المكين وعلى آله وصحابته وخير قديمه وأمته أجمعين mbokk jullit yi mbokk mbokk yu tedd yi topp télévision Touba TV ci waxtu wi tembe ci àdduna bi yëpp nu ngi leen di nuyu nuyoob islaam di wax jullit yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah nu ngi jiital ci kàddu yi sant yàlla sunu boroom moom mi nu defal jataay bii bi fadlihi di ñaan mu julli te sërmal ci sangu mbindeef yëpp sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa mm-hmm. te dolli noo gërëmal liggéeykatub yanant bi sunu way tay ak ëlëk Maulana Cheikhul Khadim di ñaanal sëriñ Muntaka Muntaqa Khalifatul am li taifatul muridiya yal na yàlla yàggal ko lol ci sunu kanam te doliko wër diko ñaanal serigne Abol Baraka mu Cheikh Fadilu waye diko ñaanal serigne Birayim ndjay mi toge jotaay serigne Birayim ndjay Gede di ñaanal tam bu baax serigne Modou ndjay mi tok jotaay serigne Aliou ndjay Gede ak njabot gi yépp di nuyu rakkam ju baax ji mu fi yebal mu teewal ko fi ànd ak rakkam yëpp di sëñ Ahmad Ndiaye di ko ziyaara di ko dalal nuyu sëñ Yiddaali nuyu sunu mbokk mu baax mi sëñ Maam Ndiaye ak mbokk yi ci jataay bi yëpp bàyyiwunu kenn ñu ngi nuyu njabootu sëriñ Aliou Ndiaye Guédé gépp nuyu njabootu sëñ Mbay Ndiaye gépp nuyu njabootu sëñ Busoobe Ndiaye nuyu njabootu sëñ Aas Ndiaye nuyu njabootu sëñ Seex Ndiaye bàyyiwunu kenn ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziyaara di len jatai ci jataay bu tedd bi di nuyu borom kër gi alaaji ahmadou mbàkke fay bu baax di sante di jaare ci mom nuyu la serigne mustapha kan ci jataay bi di la ziyara di nuyu goor yalla yi tew ci jataay bi mbokk taalibe yépp gis nañ ci sëñ Sidi Ka di sunu soppe di setu mam Cheikh isa jenn amon lolu ak sëñ Aliou ndjay Guédé man ci séré lu wër lu mu dundu ak mom dang koy ziar di ziar tam soxna yuy ci seen mobilisation yàlla yàlla fay ñëpp yiw di ñaan li ñu fas yéenee wax mu néew mu gàtt dina nekk luy jariñ jullit yépp dinu fàttali sunu mag mu baax moomu ndax fàttali day jariñ jullit rawatin nag fàttali koo xam ni murit saadiq la woon dundam gépp mu jox ko lislaam jox ko jariñe jox ko xam-xam jox ko dundal mbokk jox ko pastéef ak gëm loolu sëriñ Tuubaa fu ne mu taxawal fa yoonu murit kooku buñ koy fàttaliku ñu ngi fàttaliku ku kawe ku rëy yàlla nañ ko yàlla fayal euh, te fayal nu maam ya dale ko ca sunu maam xaadi euh, moor baasin njaay ma nga xam ni moo meññi sëriñ Birahim Njaay Gédé te boo leen tuddee tudd jolof waaw ndax defe naa boo génnee tuubaa rek jël penk bi la commencé kàdd bàlloo ji ba keroog ngay dugg fuuta ba jëm Wélingaara lépp ci jolof la day tund wu rëy te yaatu kàngam bu ne amoon fa sunu Mam joju nak nekkon qadi bu mag di atti ñep ci xam-xam bu leer nañ ragal yàlla jub lool meññi njabot gu bax ñen ñi wuy ji fële ca wuy ci muy jataay bu yaatu di boromi xam-xam di boromi cër ci yalla di mbokki ñep inshallah allah dañ ci waxtaan inshallah allah bu ñu jotaatee kàddu barakallah ci nuyo bu am solo bobu xamna naa dali daal bayyi mu nuyo rek do bismillah wa subhanallahi rajim بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه سوي رضوان وتمكين بكي جلد يتدي ني سيطان تي ريو مأكي بيتم ريو نيجي نيو نيب تدلين سيارة بو باخ دي جيتل تي نيو بأك سيارة بي صاحب الفضيلة سيح محمد المنتقى دي نيان سنبورم ياغال كوفي تي كو te mottalil ko yéene ji nga xam ne am na ko ci liggéeyal Serigne Touba te ñu ànd ko ak moom waaye naka noonu lañ koy ñaanal it Serigne Abol Baraka ibnu Cheikh Mouhamadou Fadal di ñaan sama borom bàyyi ko fi lu yàgg lool ba liggéey bi nga xam ne yéene na liggéey ci way juróom bu tedd ba suñ borom bàyyi ko fi ba mottali ko tam ànd ko njaboot Serigne Fallou gépp waaye di nuyoo ko ñaanal itam Cheikh Ibrahima Ndiaye mi nga xam ne moo fi toog jataayu Serigne Birahim Ndiaye di ko nuyu te di ko ñaanal sama borom waye falal ko yan bi te yàggal ko fi lool te wéral ko ba yene ji nga xamne way juram yi ya amon nañ ko ak magam yu bax yi ya ko fi jitu won yene ji ya ñu amon yëpp mu leen ko ci màggug yalla def ko nam ko bëgg tañu and ko ak mom waye di nuyu itam serigne Modou mi nga xamne mo moo ci bop njabot serigne Aliou Ndiaye Guédé <coughs> te ñu teewoo fi ci aw turam di nuyu ak siyaar itam mbokk mi nga xamne moy borom kër gi di talibé serigne Touba bo xamne Euh, ku sa bët tege ci jëmmam rek nga xam ne Sëñ Tuubaa rek ko ñor saa boo déggee mu wax it nga xam ne bi piir la dëgg la euh, ñëpp xam nañ ne lépp loo xam ne lu jëm ci mbirum Sëñ Tuubaa la mm-hmm. ci lu koy wone ak li lu koy feeñal Alaaji Mbàkke yi fay loolu daf ci taxaw kem kàttanam mm-hmm. kon ñu ngi koy nuyu te di ko sayaare di ko ñaanal sa borom yàggal ko te wéral ko te yokk man-manam lool ba yéeneem ci Sëriñ Tuubaa bu mën koo mottali waaye sëñ Moussa mu ngi leen siyaare yow ya, itam iya. di siyaare mboolem ñu nekk ci ëtt bi di nekk siyaare ñu nekk ci kër gi ñëpp di siyaare bu baax itam sama kilifa yu baax yi ma àndal nga xam ne ñoom la sëriñ bi yebal boole ak ñoom te sëriñ Ahmadou mi sama càmmooñ di rakki sëriñ bi jiite mbooloo mi ñu mën cee ràññee sëñ maam sëriñ Ndiaye ni nga ko waxee léegi moom sëriñ ak sëriñ maam mhm. di sama mag di doomi sëriñ Aliou ak sëñ Bousso Ndiaye mais itam di doomi sëriñ Aliou ak samay rak ku mel ne Baye sëñ Ndiaye Guédé moom sëriñ ak sëriñ Ahmad Tundoodi ak sëriñ Moodu di siyaar itam mbooleem magi taalibe yi nga xamante ni taalibe sëriñ Aliou lañ ak ñu wëllëre yeeg soppe yi nga xamante ni eh, jëmmi sëriñ a tax tey ñu dagg seeni nelaw bàyyi seen yitte yëpp ñëw ànd ak ñun ñu mën cee ràññee sëriñ Basiru Ndiaye ni nga ko waxee mënumaa lim ñi mbooloo mi ñëpp waaye daal ñu ngi siyaare ñëpp tey nuyu ñëpp ñu ngi wàccee foofu kon suñu kàddu rek ba kàddu gi dellusiwaat incha allah jërëjëf eh, sëñ bi daal ci bu am solo eh, Euh, Tindo di mu baax mais nga xam ni moom it euh, dinañ koy faral di fekk kër sëñ Basiirum sëñ Abdu Xaadir lu bari mu am taxawaay bu am solo boo xam ni am na ko fa di ko baax koo xam ni sànq rek la ñuy jokkoo bi sëñ am amee ngant rek moom lañ jokkool mu wooñu ñu ñu daal di ñëw kon noo ngi koy nuyu di ko jox nuyu boppam boo xam ne dañ ko séq ak moom euh, naka noonu tamit xam naa sëñ Sidika comme ni ko sëñ Ablaay waxee am na seere soo xam ne dina ko dina ko def ma ak ki ñuy wax sëñ Masayer Dia moom it Euh, accès gul xëy waye bu accès du ñak lool ak soxna mam xari ñu tamit dinañ yëkkati kàddu yoo xam ne kàddu yu seere lay doon jëm ci mom kon bu ko défé sëñ daam bala ñoo dugg ci waxtaan bi rek ñu xol benn vidéo biographie bo xamni ni bu señalin la ñu man ko xol incha allahu rabbi bu dee kon xamna dañuy daldi di jublu ci waxtaan wi ba ci kanam bam noppi rek euh, wala sëñ Ablaay bala ñoo tambali waxtaan wi sax ñu bayyi benn jàngkat mu ubbi su won bu demee ba ci biir keneen door a joxal ma micro bi sëñ Saliou sek mu tijjil ñu tuuti ci ubi yi ubbeel ñu ko jotaay bi sëñ Ablaye door a tàmbali waxtaan bisimilah. bisimilah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الذين عدوني ولم يتوبوا ولا يتوبون أبدا ومن المكاره دنيا وآخرته وقد أعزني الله تبارك وتعالى من جميه نعم الخريب المجيب نعم الخريب المجيب السميع بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بسم الإله الأعظم عند ربي وهو الله تعالى قن أجابني رب سامى والأرض بال لسيساما ومنه خاد لسوما ونم الماء لخساما عجباني رب ساما والأرض بالله الذي سما ومنه خاب دليسوما ما ونم الماء لخساما سلمني من العيداب لم يلونا ومن عدا ورداني من ابتدى وكان لي وعساما مدى لي الباخي الكريم جملة ما كنت أروم من واسو رؤى روم ودعما عزاما أكرماني باخي الخادم بأماني عبد الخادم وجادني بما يدوم بأبله منتسيما لقيت بسكيرة وتياب المساكيرة عبدا رن ساكيرة وبالبخاء عساما لقد فات لولا سيم وقعد لي دور النسيم ولياك نبي العاسيم ولياك دني حاما أجابني بالعسام في نسري والمنتسامي وداس تعصومي ولا يزال منحيما هو لي لا هو زمان ملي زمان بلا عادت وقد كان لم يرباني بخدمات المفدني وكانني بالأفضل وخداني تكرما لخناني سكر لكن إلي بي قاد الحكيم يسارني نم الحكيم حلمني فسدام آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب حصة حما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين barke borom Touba. tubarkalla jërëjëf euh, Serigne saliw jottali ma micro bi euh, ci xasida gu am solo gog di ajaabani rabu sama serigne ablay mu ubbe ko jotay bi moy lu am solo euh, yaakar naani ni ablay ñi ngi bëgg waxtani jëm ju baax du sel ju tedd waxtani ak dundam ak moy kan xamna naa sañuy daali dinañu ñëwal ci digënté mak mbokk yi waye dañ lay bayyi rek mu melni le 28 février la muy altine yemook bisub kasu rajab nga xamni euh naka jek wax nañ ni da daan magal bisub Cheikh Mamadou Fadal bi waye digle won nit ni bis bu yalla dogalé ci mom li mu dogal nañ koy ñaanal ci bis bi yoolu kon euh lu ama am solo la mbirum depo nak mbirum seigne fallu té lolu ku ne xam na ni waye li ci gëna doy war sax moy seigne ablay amna jankat bu ñuy wax Cheikh Bamba tioun Cheikh ndjay tioun and na maag mom at yu bari bari bari fanaan ke seigne Aliou Ndiaye Gédé mu difa fa boobu damaa xamatul sax ban kan ci njabootam fi nekkoon waaye li muy wax xaw ay quatre-vingt-dix-sept wala ah waa waaw ma woog ma loolu def nañ ko ay yoon ak sëñ bu ñu fa jógee dem ci euh, euh, ci sëñ kii Bousso mhm. euh, sëriñub sëñ kàbbu kàbbu géey bi ah, waaw sëñ Mbàkke Bousso yooyu bu ñu fa jógee door faa dem loolu di lu am solo kon sëñ bi ñu ngi fedd colère googu bu baax a baax a baax <laughs> incha sëñ kon sëñ Ablaay yi ñu bàyyi la rek nga dugg ci waxtaan wi incha allah jërëjëf Serigne Moustapha ñu ngi jaaraamaal sunu rakk ju baax ji doon mm-hmm. yëkkati di sëñ Saliou Seck tubaarkàlla ci njàng mu neex mi yal na yàlla sàmm ko euh, kontaan nañ lool mm-hmm. ci ki ñu war a waxtaane tey mm-hmm. bu ma ubbee waxtaan wi mu nekk ci sóotul ahzab yàlla wax ni am na ci sama jaam yi am na ci way gëm yi ma gëm góoru yalla yo xamni lañu la won ak man borom bi len ëndé ci aduna ci ñu ko kóllëre matal nañu lañu ñu won ci seen dund ba mu mat man nga ci boole ki ñu wara waxtani mhm. waye mag ñi dañuy wax ni waxtani kilifa day lambo ñetti jiim mhm. so bëgge sa waxtaan rafet te juk ñu ni genn jiim ji moy juddo genn mhm. jiim ji moy ay jikko genn jiim ji moy ay jëfëm kilifa soo waxtaanee ci ñett yii rek ñi koy déglu dinañ mën a am lu ñu royee ci moom fàttaliku ci moom. dëgg la juddu sunu boroom fooral ko lool ndax ba ci ngën gi mbindéef alayhi salaatu wasalaam da koo tànnal juddu bu rafet muy Qurayshi nga xam ni noobu lu màkk yépp maasa dañu moon gënoon rafet fi mu bàyyi ko ndax day tax ñu séentu mbaax ci moom yàlla dogal tam euh, noonu muy tànne ndawam di ko wàcce ci àdduna yónni ko da cay boole juddu bu rafet bu nu delloo ci alxuraan ci place yu bari danga gis sayduna isa alayhi salaam bi mu ganee àdduna ci kéemtaan bu ci yàlla wane ci sootu mariama yaayam am ko te miina taxoo woon ak mihraab bi di jaamu yàlla mësta def lu ñaaw mësu koo wax dëddu àdduna lool xëy am doom te amul boroom kër biko ay mbokam dikkalee diko dan yedd dañ dañuy dani wa wax atat bihi qawmaha tahmiluhu qalu ya maryam laqad jiti shay fariya ya ukhta Arun ma kana abuki imra sawin wa ma kana ummuki baqiya Ya kat def nga lu nu jaaxal ndax sa nday ak sa bay ñu bax lañu ñu sentu len ci mbax ñu dund ci ba wacc liggey bala fi kon waro wona jëf ju tuti ni day melni kuy tutul sunu askan mu door a dom ji di maryam mu dal di koy layal kon euh, di instant mu layal ko kon loolu day firi askan wu baax dañ koy bàyyi xel euh, yenentu yàlla Nuux alayhi salaam bi mu woowee peuple am bi ko yàlla booleel mu woo leen lu tolloog juróom-ñeenti téeméeri at ak juróom fukk loolu la woote ñu gàntal juróom-ñett fukk képp nangu li ko yàlla yónni ba mu demee bay dégager responsabilité am yow yàlla bul bàyyi kenn ci kaw suuf si laa tasar alal ardi minal kaafiriina dayyaara innaka intasarhum yuddilu ibadaka wala yalidoo ila fajiran kafaara sooñ fi bàyyee ay kàccoor la ñuy jur ndax ñoom kat lu bon la ñu jëf di weddi kon dañuy juraat tam ñu bon rek ñoom nga mën caa jànge ni kon askan day tax ñu séentu ak njàmbaar akuk nangu akuk topp ci ki bokk ci askan wu rafet woowu sëriñ Birahim Njaay Gede mi meññ sëñ Aliou Njaay Gede meññ taawam ba di magu sëñ Aliou Njaay Gede di bàyyi sëriñ Njaay Gede hmm. ka leen meññi dafa baax muy sunu maam xaadi Mor Basin Njaay ma nga xam ni mooy seen wéejur wax naa la léegi ci njaal benn nuyoo gi boo tuddee jolof tudd mbaax goo xam ni fenn ci jolof desul la ko dale kàdd bàlloo ji ba keroog ngay dugg fuuta foo ci tudd rek muy ci jolof ku fa tudd maam Birayim Njaay tudd fa wéejuram ñu xam ki nga wax ndax seen wéejur dafa nekkoon xaad yi xaad yi kenn du ko def mbindeef te jàngul ba peeg fànni xam-xam yépp door nekk xaadi yi kon maam xaadi moor Baasin Njaay xaadi la woon boo xam ni jolof yépp da leen daan àtte ci xam-xam bu rafet <coughs> buur bu mu fi mas a fekk wóolu nga ko ci xam-xamam juddoo mit rëy ndax bu ko neexoon di buur ndax juddu bi mm-hmm. Mm-hmm. xam-xam bi rëy ñu jox ko muy àtte ñépp kooka kon ko mu meññi war ngaa baax mm-hmm. yàlla dogal nag moo meññi sunu maam ju tedd di maam Birayim Njaay Gede buñ koy taarixal mu ngi feeñ foofu ci fu ñuy wax njaayeen kat mhm. fa la gane àdduna ndax ci jolof ñoom dañoo amoon ay tund yu bari yu wuute waaye lépp ci jolof la mhm. nga dégg ñu ni euh, mbayeen cas de loolu lépp jolof la gis nga maam ab sa njaay fa la ko maam maaram jële ci la sëñ Moussa Ka sëtoo damay bëgg a wane rek ni ki ñuy waxtaane mooy mhm. mbokk ñëpp waaw maam ab sa njaay ci la sëñ Moussa Ka sëtoo dégg nga ca woy wa euh, sëriñ Moussa Ka mu man mee woy mhm. mu ni ngir Seynabu Mbàkkeem Afsa Njaay ak maaram mi ngën gi bàyyi mooy yaay bàyyi sama yaay maa dikki ni ci xarm bi kon fala maamam bokk dafa am nag fu ñu fay woowe njaayeen kàdd mu jàkkaarloog siin fa maam Ousmane tëdd mi jur Seydil Hadji Malick Seydil Hadji Malick foofee la bokk fala baayam bokk mbokk la lool mu jege jàmbaar ji ñuy waxtaane maam Birahim Ndiaye Guédé kon mu ngi feeñ ci atu 1878 loolu la taarix indi mu feeñe foofu di njaayeen kat bi yàlla dogalee tam mu feeñ ñu tànnal ko wu turu tett muy Ibrahima Ndiaye wéy juram nekkoon xaadi bu bari xam-xam te mën a jàngale ci fànn yépp mhm. bi mu tollee ci jàng bàyyee ma ko jàngal ba mu jéeju ci fànni xam-xam yépp jàngal na ko jàngali magam jàngali rakkam ba mu fees dell ci xam-xam bi mu feesee dell ci xam-xam it nag mbokk amoon na si digganteem ak Serigne Touba ndax bu ñu fàtte ni euh, maam Mor Basine Ndiaye mi nga xam ne mooy xaadi Mor Basine Ndiaye ke ko jur mooy Soxna Basine Soxna Basine ma ko jur Mati Mbàkke ko jur Mati Mbàkke ma ko jur Cerno Farimata ko jur Cerno Farimata ma ko jur maam Maaram ay baayam te boo delloo ci maam Maaram da ngay waxaat fëri Farimata wax ni cer Cerno Farimata Mati Mbàkke Mati Joo si nga ni Ousmane si ni Seydil Hadji Malick so delo ci mam maram da ngay wax mam maram ni cerno fëri mata cerno fëri mata hadim mbàkke hadim mbàkke jur ngagnang ngagnang juru jur sofiatu ñang sofiatu ñang mam mawdo denc ko am ci cheikh mu amadul mansour bàyyi khalifa be ca tiwaawat am ci seigne abdul aziz tabakh mhm. am ci seigne habib sila ci tiatlo mhm. kon ki may bëgg waxtane moy mooy mbokk ñépp mhm. maam mi meññ kon wi juru seigne ibrahima ndjay gede muy mbokum ñep mooy mbokkum ñëpp. dëgg la nga dellu ni sëñ Ibrahima Ndiaye Guédé di ba maam Birahim Ndiaye Guédé. Mhm. wéy juróom bu jigéen mooy soxna Astu Mbàkke soxna Astu Mbàkke moomu sëñ Moor sëriñ Moor Jee Mbàkke mi ko jur Ibrahima ko jur Ibrahima Mbàkke Awañang maam ma ko jur mhm. mu duggaat ba mhm. moom sëñ Birahim Ndiaye Guédé waaye Astu Mbàkke mi ko jur Astu Mbàkke soxna Aysa Balla ko jur Aysa Balla maam Balla Aysa ko jur mi ci ngay maam Balla Aysa mooy caatu maam Maaram moo jur maam Mor Anta Sali mi jur sëñ Tuubaa sunu yaakaar. waaw kon mbokk ñépp la woon. moom maam Birahim Ndiaye Guédé. moo tax bi yàlla dogalee nag wii juróom wàcc liggéey. di soxna Assu Mbàkke du sori 1895. ndax xam ngeen ni sëriñ bi bi mu waree dem ci tukki bi mu ngi ko fekkoon fii ci jumaay sëriñ Mbàkke Madina ji foofee la defe defee intikaafam foofee la ko yenant bi alayhi salaatu salaam feeñoo fa la ko waxee li mu bëgg fi muy jaar ba jot ci ca la génne dem sanc ji fële ca jolof ba mu sancee nag ca jolof mbàkke baari foofa la waaje dem ci jamono yooyu tembe ci la soxna astu mbàkke mii wéejuru maam biraayum njaay gede wàcc liggéey sëñ Tuubaa ko fonkoon ak mbokk la di ko dundal dafa sol dàllam dem jaale ji ko da demee nag jaale ji ko nag mhm. ca la nag ah, sunu maam bi tedd ca maam xaadi sëñ Tuubaa nag rafetlu jataay baak jéego ya jël nag njabootam dénk ko Serigne Touba ca la ko joxaale nag sëriñ Birahim Ndiaye Guédé euh, ak mbokkam yu baax ya ñuy ñett mu ne waaw mu ko ak sëñ Mbay ak ak sëñ Seex ni ko dénk naa la leen su soobee yàlla daal fii ba yowmal xiyaam soo ma ko delloo delloo nga ma lépp yow laa ko dénk ba yowmal ma kon keroog la seen ànd boobu am Serigne Touba nag def leen comme njabootu boppam xam ne wuutewu ak sëñ fan te loolu nañ ci dem ci kanam ni mu feeñu ci seeni njaboot amul benn wuute ni mu jàppe woon sëñ Fallou leen jàppe def leen comme njabootu boppam taxawloo leen nag ci xam-xam ak ci jaamu yàlla ak ci njub ak ci istixaama ci la sëriñ bi nekk ak ñoom ba bi sëriñ bi demee tukki ba jël siwaat bi sëriñ bi demee gànnaar ku ne xam na ni sëriñ Birayim Njaay de fekk na ko gànnaar ci ndigalu sëñ Tuubaa <coughs> ba mu fa ñëwee sëñ Tuubaa ko doon jàngaleloo alxuraan bu fay jàngale alxuraan ci jàng ak ci jàngale la ma sa nekk nekk ci ak sëriñ Touba sëriñ bi jox ko ndigal muy jàngaleel sëriñ Touba alxuraanul karim bi mu gënoon a bëgg liy firndeel tam ni moom sëriñ Birahim Ndiaye Guédé làq na ngërëm ci ñépp soxla di sëriñ Touba mooy sëriñ bi woolu na ko bis njaareem ba mu ñëwee ndax moom 1912 bi sëriñ jógee ci yeen jolof xam ngeen ni sëriñ mu ngi jógee ci yeen jolof ak si altine njaareem mu tolloo 15 janvier 1912 bi mu fa ñëwee diir bu gàtt la fa def daal di woolu nag sëriñ Bira daal di woolu nag euh, sëñ biraayum Ndiaye Guédé ne ko na dem ca sa nijaay wéttalil ma ko kan mooy nijaayam sëñ Mbàkke Buso ndax moom la mbokkam la ci lépp ba mu ñëwee sëñ Mbàkke Buso ku wóolu gi mu am ci moom ak sëñ Tuubaa mi ko dénk tax na sëñ Mbàkke Buso imaam la ko def ci biir kër mu daal bu ko daan jiital ci jumaam ji ci Guédé te jumaa joojee ko xam sëñ Mbàkke Buso fa mu nekkoon am na naar bu ko woy defe naa Muhammadu Asinqiiti la ca gànnaar dani banaa masjidan lillaahi ahsana bunyatin yu addi huquqallaahi in baata aw zillah kon sëñ Mbàkke bu so moom taqwa ragal yàlla rek taqwa moo taxoon mu sos jumaam jooju waaye sëñ Birahim bi mu ñëwee dane ko dee fi jiite nekkal imam bi sëñ Tuubaa yebal na la fi waaye maay sa nijaay jox naa la ndigal del jiite fa lay jiite ba bi ko sunu boroom di moom ci 1934 sëñ Mbàkke bu soo ko julleel boppam comme ki jullee woon sëñ Tuubaa jullee sëñ Birahim Njaay Gédé door a jël nag bàyyi Serigne Ndiaye wuutale ko foofa ne ko dil jiite kon loolu mooy kóllëre ak sëñ Touba léegi bi Serigne bi ñëwee nag ba nekk njaareem am na bis mu woolu maam Birahim Ndiaye Guédé mu ñëw ba mu ñëwee sëriñ bi liggéeyloo na ko ci alxuraan liggéeyloo na ko ci la liggéeyloo na ko ci lu nekk ci mbind moo tax sëñ bi wool ko boppam ba mu ñëw sëñ bi tëjoo moom ni ko Birahim mu ni ko Mbàkke mu ne ko yàlla mi la sàkkoon nee na gërëm na la yonent bi alayhi salaatu wasalaam mi taxoon nu sàkk la nee na gërëm na man sëriñ Touba mii jëwriñu yanant bi te la doon liggéeyloo di sab sëriñ gërëm naa la waaye yanant bi da cee dolli leneen nee na ngërëm di naa ko wutal seere daal ni ñokket dugg ci biir keesam génne jàllaabe boppam jox ko sëñ Birahim Ndiaye Guédé loolu defe naa yombul ku ko am ci Cheikh Mat Bamba Xaadima Rasul ngir firndeel ngërëm gi ko sëñ Touba defal bi yàlla dogalee tam mu dem ba sunu borom may ko njaboot ndax taawam foofu ci njaarim bi muy jamono bi muy feeñ 1912 du 1912 bi muy feeñ Serigne Touba moo yebali mag bokk na ci ma Massamba Diop Sam ñu dañ ko tànn li bañ demee ñu tuddee ko Serigne Touba muy bàyyi Serigne Ngaye Guédé. Serigne waaw mu wax nañu ko tuddee te tuddee ma ko. waaw mu wax ndigalu sëñ Touba ñu tuddee ko Cheikh Bat Bamba Khadim Rasoul sëñ Alioune Ndiaye kon mi ñu fas yéenee waxtaan kookooy wéy juróom sëñ Birahim Ndiaye Guédé sëñ Birahim Ndiaye Guédé maam Mor Basine mooy wéy juróom. wax naa la fi ñu jaar ak mbokkoo gi ñu am ak sëriñ Touba moom nag sëriñ Alioune Ndiaye it mu ñëwaat am lu mu nuru baayam mooy lan mbokk gu rafet yëpp da ko amaat ci maam maaram ci wàllu woolaal muy askan wu rafet woowu ndax sëñ Alioune Ndiaye Gédé da mën a wax ni soxna xari busoo ko jur na xari Sadio Buso soxna xari Sadio Buso kana ko jur sëñ Seexu Buso sëriñ Seexu Buso ku ko jur sëñ Buso bi tudde ko Seexu Omar al Fuuti taal kon mooy mbokk ñëpp taawu sëñ Bousso be moo jur ki ko jur kon sëñ Seexu Bousso mi taawu sëñ Bousso moo jur moo jur soxna xëri soxna xëri jur ko moom sëñ Aliou Ndiaye Guédé waaye soxna xari mi ko jur soxna saajoo ko jur saajo Mbacke Sadio Mbacke moomu ko jur sëñ Ibra Kànni ko jur sëñ Ibra Kànni mi ko jur ak soxna Anta Ndiaye Mbacke mi jur maam Cheikh Anta borom Daaru Salaam ak sëñ Afe ak soxna Anta Sale soxna Faati Anta mi wéjuru sëñ Mor Fatim Touré ñoo bokk lépp kon mooy mbokk ñëpp ci wàllu woo dugg ci maaram mbàkke gi ci mbusoobe mooy mbokk ñëpp moo tax nag sëñ Alioune kon mi nga xam ni war nañ ci waxtaan dama doon laltaay ci askanam ak ay wéjuram ak i mbokkam moom nag mu ngi gane àdduna 1919 ci li gën a siiw ci la feeñ ndax boo ko seetee moog sëñ Modou Bousso Dieng ñoo bokk jamono ak sëñ Hamidou Mbacke ca Daaru Salaam moo tax ay kóllëre lañ woon sax jaxasoo ci lépp ndax dañoo bokkum jamono 1919 la bi yàlla dogalee tamit mu ñëw xam nga fi la fekk sëriñ bi te seen lépp sëriñ Touba joxe ndigal moom sëñ Aliou Ndiaye bi muy feeñ fi la fekk sëriñ bi ndax 1919 la feeñ bi mu demee tam ba toll ci war a jàng ñu jox koy kàngam ñu jàngal ko ndax rakki baayam ji wax baay Mbay Ndiaye moo ko jàngalal boppam jàngal ko ba mu géeju lool mu door koo jox jàmbaar ja ca daaru salaam bambu muy sëñ Malick baasin si foofa jaar na fa cim njàng nekkoon fa ba géeju fa mook sëñ Modou Kabir Ka mi jur sëñ euh, sunu xarit Cheikh Abdou Lahad Ka baayam ñoom ñooñu la fa nekkandooloon mu am lante woon ak ñëpp moom sëñ Aliou Ndiaye Guédé tudd ko mooy tudd boroom xam-xam tudd ko mooy tudd ko mokkal alxuraan te dégg ko ndax mag ñi wax nañ ñi jaxasoog moom daana war a dem ci bërëb sàngam daal ni nangami isib mooy distance bi loolu da ci sëñ Tuubaa lañ ko daan dégg noonu bërëb sàngam ba bërëb sàngam nangami isib alxuraan moo la fa yóbbu daana ko wax wala bërëb sàngam ba bërëb sàngam ñaata ruboo la ñuy jàng pour àgg ci bërëb sàngam loolu ku jekkoo noonu alxuraan na ko man kon alxuraan moo nekkoon dundam waaye xawsu la woon xawsu mooy kuy xeetali mbindéef yi sëñ Aliou Ndiaye Guède boo koy fàttaliku da ngay fàttaliku xawsu ngay fàttaliku ko daan xeetali ci mbindéef yi te amul xeej ak seen amul kii taalibeem wala kii du ba ci këru boppam danga nga fa daan fekk ñu fay fanaan mu fat leen ñuy dund ci biir këram te duñu taalibeem loolu defe naa mooy mbaax soo xasee ba am ko dootoo yemale kii ci man la bokk ak kii bokkul ci man ci biir këram daa ngi ci fekk ñu ciy fanaan mu leen di dundal te duñu ay taalibeem lana taxoon jëmmi yàlla ji rek mi leen sàkk muy def yërmande ci ñoom kon xeetalikat la woon toog ne bis ci buntu këram ñu am ku am lante ci wàllu bor nee nañ toog na bis ci buntu këram ñu am ko ñu jàpp ci wàllu bor ne ko faaw nga fay fekk moom mu doon wàcc ngir génn fi mu toog ñu daal di sonal kooka njërfal ko ni ko faaw nga fay ba mu gisee kooka di as gor néew doole ñu njërfal ko ni ko da ngay fay sëñ Alioune daal ni bàyyi leen ko ñu ni ko njaay kii li mu def daa rëy di xaalis bu bari la la yóbbu mu ni bàyyi leen ko ngi daal koy bàyyi mu ni ñëw leen ñu ñëw mu lu mu amel ñu laaj lim ba na mu toll mu dugg ci biir keesam wàññi ba mat mu fay ko te yàlla tax te xaalis bu bari la woon kon loolu mooy ko daan lebal jaam ñi te yàlla rek tax ñaata la dimbali ci diggante Italie am na ñu bari ñu ma ci xam ci diggante Espagne ci diggante France ci Allemagne ku nekk naan ba ma tiitee damaa daw fekk ji ko Italie mu ñaanal ma sama aajo faju ndax moom borom wilaaya ji ko wilaaya ji da koo jege woon lool am na ci yoo xam sax du wax yi télé ndax du ma ca ñimee dugg waaye am na yu ma ci xam yooyu magama ko dee ku borom wilaaya la woon lool te li ko may loolu mooy ragal yàlla bëri yërmande bëgg loolu sëriñ Tuubaa jeex ci tàkk jaay léppam jënde ko digganteem ak sëñ Modou Moustapha Fallilou nga xam ni benn la ñu woon wax naa la ñoo bokk jamono waaye sëñ Fallou leen boole sëñ Fallou moo jël loxoy sëñ euh, Alioune Ndiaye ak loxoy sëñ Modou Moustapha Fallilou ngëbale leen ni ngëbante leen bu baax te téyante ay wasu cin dañuy ànd nekk benn ndax wasu cin kat benn bu ci yàqoo rek cin wa daal di dëng te damaa bëgg ngeen liggéeyal ma yéen ñaar moo tax seen ànd boobu rafetoon ba foo mës a gis sëñ Modou Moustapha gis ko ci wetam ñu ànd lépp. dem na ba buy gërëm ku mu gërëm ci këram leetaru ngërëm gi sëñ Aliou Ndiaye Guédé koy bind te sëñ Modou koy approuvé àgg na ci kóolute gu mu am ak moom génn dem tukki ba fi njabootam yebal ko ni ko demal tuddal ma leen tur wu la doy doy na ma tuddal tur wi tur wu la doy doy na ma loolu defe naa ku ko sëñ Modou Moussa Dieng di wax mooy kon defoon na la ni boppam nga defoon ko ni sa bopp ngir ñoom ñaar seen ànd bu rafet bisu it mu koy jiiteloo muy jiite bisu gàmmu noonu bis yi nga xam ne yëpp dañ koo taamu moom la daan jiital naafila ji comme ni ko ay wéejuram daan defe noonu la ko sëñ Modou Moussa Fall daan loo mu nekkoon jëmm joo xam ni kon fàttaliku ko mooy ku ragal yàlla ngay fàttaliku koo xam ni dundam gépp zéro faute la fàttaliku ko mooy ku amoon yërmande ku amoon yërmande koo xam ni mësuta euh, tànkam la benn jaam te taxawu la fàttaliku ko mooy fàttaliku ku bëgg alxuraan te amoon xam-xam fàttaliku xam ni këram yëpp daara la ko defoon ku ñëw ci kër gi ci nga bokk xettali mbindeef yëpp amul xejj ak seen nuru loolu baayam mësta wàcc digal liggéeyal sëñ Touba liggéeyal sëñ Fallou ba liggéeyal sëñ Mourou Moussa Fallilu nga xam ne kër sëñ Fallou gërëm nañ ko kër sëriñ Touba gërëm nañ ko kóllëre yi mu amoon tam ñëpp ko gërëm ndax tey boo demee kër sëñ Massamba Mbacke sëñ Modou Faati Xarim benn la woon ak moom boo demee benn la ñu woon ñoom ñaar soo demee ca kër maam seex Anta sëñ Hamidun benn la ak moom noonu lañ meloon kër goo ci dem boo demee kër sëñ Mor Soxna sëriñ jiili gànnaar benn la woon ak moom kon ñëpp la am lante la woon ci alaaxa yu rafet yoo xam ni tey koo tudd sëñ Aliou Ndiaye Guédé mun la daal tudd nga ko bari yërmande tudd nga ko bari xam-xam tudd nga ko tabe tudd nga ko mënoon a dimbalee tudd nga ko dëddu àdduna tudd nga ko daan servir jaam ñi te yàlla rek tax tudd nga ko amoon nag alaaxa tariqa yëpp ku ne mu am lante yow ci Sénégal wax ji moom euh, mëne su ta waxaat sax lu weesu li nga wax ndax euh, lepp tegu na ci aw yoon man na sekit nak ndax ah waaw mom bu wax bu wax doon mat dal ñu wax ji nga wax matali na ah kon ñi ngi lay sant bu baax ndax it bi ñuy di tàmbali rek la ko ko wax ni ko li ëpp solo ci wax moy xam li ngay wax wa te ma sha allah suñu borom da ko def muy borom xam-xam mu jang ba nopi jang histoire te te lolu am solo la wa so demee ba yalla nattu ngay ab kat ñu di la wax lo fexé ba maîtriser li ngay wax day am solo kon yàlla na la yàlla la lafat cal te yàggale la sama wëllëre la sama xarit la man mii dama koy wax ne ko moom dafa bokk ci samay professeur damay jékki-jékki dugg ci benn mbir moom laay woo waxtaan ak moom mu daal di may leeral lépp nu mu demee ma door a wëy ma door a wëy ca loolu muy borom xam-xam bu ñàkk ki ñaan kon ñu ngi lay sant baax bu ko defee dañuy njëkkanteeg waxtu bi rek euh, sëñ bi kon yaakaar naa dégg nga ni mu ko waxee ca la ko tàmbalee ca maam ya ba agsi sëñ Aline jikkoom ak lépp rek dañ lay bàyyi nag yow it nga wax ci li nga xamni ni mbokk yi nga xamni ni tamit amawon nako ak digganteem ak jabatuk sëñ touba ak i mbokkam ak dundam ak lepp rek suñu dal bismillah waaw euh, wax nga deug sëñ Moussa. Mhm. di sant bu baax sëñ Ablaye ci kàddu yu rafet yi. Mhm. waxtani ma sha allah li ci jotta jall lepp amna am na solo lol tegu na ci ak xam gu wér itam nag. Mhm, euh, daanaka yi damay sof rek waye sëñ Ablaye xawna naa xuus ci ak bokkam. deug la deug la. nim ko waxe mi ngi juddo mom sëñ Aliou. ci diggante yaari way juróom yi tedd yooyu te mooy Cheikh Ibrahima sëñ sëñ mooy Xaalimor Basin Ndiaye mhm. ak euh, euh, mu ngi jógee ci sañ Ibrahima Ndiaye laa bëgg a wax mhm. ak euh, soxna Xari Sadio Bousso mhm. sëñ Ibrahima wax nga ko léegi doomi maam Xaalimor Basin la maam Xaalimor Basin moom itam maam Basin si moo ko jur maam Basin si ak maam Ousmane si way jur Alaaji Malick ñoo bokk ndey ak baay jigéen te mooy soxna xari buso doomi sëñ seexu la ni nga ko waxe léegi mooy taawub sëriñ seexu Bousso moom la sëñ seexu njëkk a gis sëñ seexu di doomi sëriñ Bousso be di taawub sëñ Bousso be waaye sëñ seexu nag mook sëñ Mbàkke Bousso ak sëñ Masamba Faati ñoo bokk yaari way jur waaye ba tey itam euh, Cheikh Ibrahima Ndiaye mi nga xam ne mooy way juru sëñ Aliou soxna Asta Mbàkke ko jur wax na ko léegi soxna Asta Mbàkke doomi soxna Aysa Balla la soxna isa Balla nak dafa amone ñetti doom yu jigen yo xamni ño bokku nday ak bay muy soxna Asta mbake, way juru sëñ Birahim ak soxna Kanni mbake way juru massa mbake Kanni ak seigne mbake Kanni ak soxna Aminte bu so nday seigne abdou khadir ak soxna euh, euh, Kanni mbake ak soxna soxna soxna mbake moy way soxna Jama Ba mhm. mi jur seigne jogu sëñ Njoogu mbakke mi yoroon jumaa ji kon ñoom ñett ñooñu mhm. doomi soxna sa Balla lañ mhm. ba tey itam euh, boo delloo ci euh, Ibrahima Wañang mhm. Ibrahima Wañang moo meññi Ibra Kan ni wax nga ko léegi Ibra Kan ni ak soxna Anta Njaay ñoo bokk way waaye nag Ibra Kan ni soxna Sadio Mbàkke mooy ab soxna mooy way juru soxna Xari Sadio mi nga xam ne moo jur Sëñ Aliw kon day mel ne foo ko làmb ah. da koy daj la foo ko làmb rek fekk ko fa ci yaari wet yëpp waaye nag ni mu juddoo itam noonu la jikkoo comme li sëñ Ablaye wax ni judd bi rafet noonu la jikko ji rafet léegi dégg naa sëñ Ablaye wax loo xam ne lu ko gën a wér yàlla sàkk ko ci kooki nga xam ne dañ ko euh, tong-tongaloon ci bor mhm. te xamu ko keroog la ko jëkk a gis waaye mu gis nañ ko jiitale ñaaw te te te doy waar lool loolu man ki ko dund moom ma ko nettali ki nga xam ne yaayam la séqaloon ki ko yaayam womatoon moo ma ko nettali ne ma sama yaaye ko womat ñu romb sëñ bi ci buntu bi mu woo leen laaj leen lu mu def ñu ne ko daf ñoo ameel bor diw gu bari gum leboon te kenn gisu ko boobaag léegi kenn gisu ko damaa dox ba dajeeg moom ci wetu kër sëñ Abdou Xaadir laa dajeeg moom jàpp ko andi mu ne ko fu ngeen ko jëmee mu ne ko dañ ko yóbbu ci yoon mu ne ko bàyyi leen ko mu dem ñu ne ko sëñ bi xanaa kii xamoo ne bari la la mu ne bàyyi leen ko rek mu dem ñu ko mu ne waa ji moom ko mi mu a jot ci la jàdd te kum doon ak fu mu dëkk bi ñëpp demee nag mu ne leen toog leen bi ñëpp dem mu jóg dugg ci biir woo leen ñoom ñaar ñaari soxna yooyu ñu ñëw mu laaj leen nu xaalis ba toll ñu wax ko mu wàññi de mu wàññi ko jox leen kon su ma ne laa ni mu juddoo noonu la jikkoo loolu yi moo tax euh, way juróomit Cheikh Ablaye wax na ci lu am solo ci mhm. digganteem ak Serigne Touba mhm. Cheikh Ibrahima Ndiaye ku teel dem ci Serigne bi la ndax bi muy dugg ci Serigne bi fukki at ak juróom benn moom la am daanaka kon dañuy wax ne Serigne bi moo ko yar moo def ci moom lépp mhm. ndax ginnaaw am njàngam la ñëw ci Serigne bi te mooy bi sëriñ bi demee Jolof jaale ji maam xaali boobu soxna Asta Mbàkke moo nelaw mhm. bi mu demee sax maam xaali mi ngi koy seereel déggal gu ko soxna Asta déggaloon ak nangul gu ko soxna si nangaloon mhm. ba dindi kaala gi ne ko ni sama ni ma sama kaala gi nangule ni ma noonu la ma soxna Asta Mbàkke nangule woon daa di koy wax ne ko njabootam gii mu fi bàyyi nag yow laa la yow laa leen di sédde yow laa leen dénk ëllëg soo ma ko delloo baax na waaye soo ma ko delloo yow laa leen féetale sëriñ ni nga ko waxee dëgg la wutali wu ko woon ak Cheikh Mamadou Moustapha ak Serigne Fallilou. Mhm. sëriñ bi ànd ak moom moom sëñ Ibrahima ci biir kër sëriñ Touba la cay firnde ci la ab taawam ganee jamono te mooy bàyyi sëñ Jaay Gédé ci biir kër Serigne Touba ga ca Ceyeen Jolof. sëñ Ba sëñ ma Massamba Diop Sam tudd ko ci ndigalul sëriñ Touba ndax Serigne bi daf koo woolu ba mu ñëw mu ne ko kaay dem Gédé nga jël sëriñ Mbacke am na geneen kilifa gu ñu àndoon damay baji juum te fàtte ne ko su ngeen demee nga tudd ko yow mhm. soo demee nag nga tudd ma ko Baye Sëñ Njaay de moom la sëñ Birahim njëkk am sëñ Birahim yàggu fi cinquante six ans la dund lim fi bàyyee ci ak njaboot it bëriwut juróomi doom yu góor la fi bàyyi ak ñett ñu jigéen Baye Sëñ Njaay de mooy ab taawam moo ko njëkk a wuutu di jàmbaar ku xam yoon wi xam Baye Sëñ Njaay de moo ko njëkk a wuutu ci ak ndaw nag ndax dafay bàyyi ñoo xam ni suñ borom daf leen a dimbali waaye gannaaw dimbalu yàlla yooyu nag suñ borom roof leen jom ñoo am jom jomi li leen seen wayjur di a bàyyi bàyyi gannaaw lépp ñu xam la leen war ñu ne ca ba tey ba leen ci fekk fekk leen ca bàyyi sa njaay gi de moo moo mag ci njabootam di ki nga xam ne moo ko njëkk a wuutu sëriñ mooy ñaareel bi doomam di ñaareelu xalifaam yàlla dogal na it amoon na doom juñ daan wax sëñ bu soobe njaay sëñ bu soobe doomi soxna euh, Faati Mbàkke la ñu di ko soxna Ngaaji Mbàkke ak beneen doomam ku ñu wax sëriñ As Njaay di doomi soxna Faati Buso moom sëñ Mbàkke Kanni Buso sëñ bu sooyee moom it amoon na ko mu bokkal ku ñu wax sëriñ moor Ndiaye moom yàlla dogal na bàyyiwu fi doom waaye ñoom ñu ñi jabootu sëñ Birahim Ndiaye lañ bu dee ci ay doom yu jigéen ñi amoon na ku ñu doon wax soxna Basine Ndiaye mu ko maamam soxna Basine moom yi moom lañ joxoon sëñ Ibrahima Birkilaan amoon na ku ñuy wax soxna Aminta Ndiaye moom la sëriñ Cumbuleen Bousso yoroon am na ku ñuy wax soxna Awa Ndiaye moom la sëriñ moo Modou Xari Bousso yoroon moom sëñ Mor Xari si wala moom sëñ Magal Basine sëñ Modou Khady moom sëñ Malick Bassine si moo ko yoroon. ñett ñii la fi bàyyi ci ay doom ñi ko wuutu nag ci ay doomam ñaar rek lañ muy bàyyi si njaagit ak sëriñ Aliou mhm. ndax ñi ci des ñëpp dañoo jiitu seen mag yu baax yooyu ginnaaw sëriñ Aliou it sëriñ Mbacke Ndiaye mooy ki ko fi njëkk a wuutu ci ab xalifaam ñu di ko ñaanal di ñaanal way juróom yu baax baax foofee ñu nekk yërmande suñ borom di dotti ko ci ñoom saa su ne sëriñ Mbacke nekk na fi itam mu yor ko di ko doxal ci doxalin wu fi bàyyi koo itam sëriñ Babacar Ndiaye moo fi nekk di ab xalifaam moom itam di woon koo xam ni boroom xam-xam la woon ku yaatu la woon waaye ku mënoon a jotalu bokk la bi mu fi bàyyi ko itam yàggul sëriñ Fallilou Ndiaye moom bàyyi sëriñ Ndiaye gi de moo ko wuutu moom nag yàggu fi dara diggante bu gàtt la fi def yàlla na ko yàlla dolli yërmande te dolli ko njéggal sëriñ Birahim Ndiaye mi nga xam ne moo fi nekk nag di ab xalifaam moom la ñuy ñaanal tey sàkku ci mbooloo mépp ñu ñaanal ko lo nga xamante ni mooy sémbul maamam ja te mu nekk ci ab boppam tey duñ ko ñaanal yan bi wayaf ndax ab yan bu woyee fee day melni la ci nek da bari bëriwut mhm. dañ koy ñaanal yalla katandal ko bu mu attan bi mhm. te fam bëgg dem suñu borom dimbali ko bam dem fa tañu and ko ak mom muy ko xam ne la lol mhm. lolou dal na wàccee ni fofu sama kaddu bu fekkee amo leneen lo may lajat ba mu dellusiwaat ci man ma développer wat kam ni kaddu naa la ma laajaat inshallah allah jeuf señi daali ci euh, euh, nonu nga ko leerale muy lu am solo xamna comme dañuy bëgg ak waxtu bi dama bëgg bala ñoo wat ci sëñ Ablaye ak yow nga xamni moy doon kàddu yo xamni moy doon kàddu yu mujj sëñ bi man ñoo ñaanal dañuy jox sëñ Sidika mu mu mu mën am euh, yu mana euh, atman jëlal ma joxal mako micro bi ko defé momit mu am séré yu mana def ñu door ñu door a dellusiwaat auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim kon ñu ngi nuyu jataay bi yëpp. Mm-hmm. di sant yàlla bu baax a baax bim ñu boolee ci waxtaan wi wu sëñ Aliou wi. Mm-hmm. may jiital ci nuyoo bi Cheikh Abdou Latif Diagne. Mm-hmm. xalifa maam Cheikh Issa Diagne. ñi nga xam ne di nuyu sëñ son bu Diagne mu sëñ Mbàkke Marema di sama wasila. waaye nag di nuyu sëñ moodu njaay ak njabootu sëñ Aliou Ndiaye di leen sant baax di leen gërëm. ñun dañoo am tawféex ci sëñ Aliou. ndax 1998 ci ñun la mujj Italie sëñ maa ngi toog sëñ Modou toog mu def fa kiimaan yu bari kiimaan yoo xam ne suñ ko dee lim fii la ñu subay fekk waaye mën nañ cee lim tuuti yaakaar naa ni sëñ Italie na ci àgg. ndax kilifa gu toog ni damaa bëgg képp ku am soxla na nga ñëw ci man loolu aw fit la. ak njàmbaar la waaye xam-xam la. Mhm. sëriñ Aliou nag damay wax ni dafa nekk nit ko nga xam ne c'est multidimensionnel. mooy nit ko nga xam ne ñëpp la jaboote mhm. def na fa lu bari ci Milan mhm. ndax yaakaar naa ni dëkk bu ñuy wax Voghera ci Genova mhm. keroog bi mu ñëwee am na ko nga xam ne tubaab bi dañ ko ne da nga feebar bi la dal dañ la daggal bii nga dellu senegal bi mu ñëwee ñu boole ko sëñ Aliou sëñ Aliou dugg ci biir am lu mu jëflante moom ni ko damay dem Bruxelles te ñëwaat seet samay taalibe keroog bi mu wàccee bi sëñ Aliou wàccee ay aéroport kooku bokk na ci ñi nga xam ne ñoo teeru sëñ Aliou dafa daw yuuxu wuti ko. loolu jaaxal ñu bari ndax tubaab yi yaakaar naa kuñ mës a xool ban la dellu sam réew defe naa ni. dëgg la pour euh, waaye kooku dafa mu jébbalu sëñ Aliou. mi ngi dund ba tey jii sama wëllëre sama xarit la. Mm-hmm. man mii sama kër la nekkoon keroog bi mu ñëwee ñu jëlee ko aéroport mu ñëw biñ defaree kër gi ba noppi fekk man ak Masseer Dia. Mm-hmm. luyee nañ otel ndax defe ni loolu moo gën a warmal ak kilifa ko doon sëñ Aliou. Mm-hmm. bi mu ñëwee. ñu berndeel ko mu reer ba pare ñu ne ko sëñ bi dañoo bëggoon ñu dem ca barab ba ñu fàggu mu ni barab bu demee nan ñu ne ko hôtel mu ni ah yaakaar naa ne fii laay toog de ñu ne ko sëñ bi lu tax mu ni sii di yàgg ma seer daa am lu ma leen bëgg a wax man fu ma toog sama yaram day am fu mu ñemee ñëw looy fi ñeme na ko kon fii laay toog bañ xëyee suba dëkk bépp tasi ci kër ga mu faj fa aajo yu bari ay tubaab ak nit ku ñuul ak ku nekk waaye li ma gënoon a jaaxal sëñ Aliou mooy danaan boole ak njaboot mm-hmm. bi mu jógee Korsiko dem ci hôtel ci eh, Loreto te guddi gi sëñ Modou ni ma sëñ bi na ji toob laax ma togg ab laax teg ko sama oto indi ko bi mu ñëwee ci yooro mu jëflu mu mu jëfandiku ci ba noppi ni ma yóbbul ci taalibe ñu barkeelu ci am kenn koo xam ne man ak moom dañoo amoon aw dikk bi ñu ma ni sëñ bi ne nañu barkeelu ci laax bi kooku lekkul ndax diggu ma amoon ak moom te yàlla xam na ni sëñ Aliou fa mu nekk ak fi néeg bi nekk sore na lool bi ñu noppee mu wolu ma ni ma siidi laax boobu mënoon am ngeen ci barkeelu daa mel am na daa mel ni diw barkeelu te njaga njaga la tuddoon ma ne ko waaw mu ne leen ma ko ñu ñëw mu ne ko njaga lu tax siidi ne la kaay barkeelu barkeelu woo barkeelu loo mere mere nit bu ñu ne kaay barkeelu na nga barkeelu leen loxo ak exemple yu bari man mii am na sama rakk yoo xam ne keroog bu ñu ñëwee sëñ sëñ daf leen woolu ba mu ñëw mun leen da ngeen am diw mu ne ko waaw mu ne ko jëlal euh, dix mille nga jox ko te tub te te baalu ko àq def na loolu. te man suñu Aliou li ma gën a jaax ci moom njabootam ki rek exemple lañu. ndax am na particularité bu ci am boo xam ne bërul fu mu am. njabootu suñu Aliou ki gën a mag ba ki ci nekk xale ñoom ñëpp benn lañu. ànd déggal sëñ Modou te loolu moo ko liggéeyoon. dëgg la kon sëñ Aliou. dañuy sant baax a baax xëy na li ñu bëgg a wax lépp mënuñu ko wax daal. Mm-hmm. waaye ñoo ngi sant ñëpp di ñaanal njabootam gi daal yal na yàlla guddal seen fante wéral seen cër. yéen ñi organiser plateau bi tam. li ma wax ko ne. Mm-hmm. man de xam naa sëñ Aliou loo xam ne bis ni tey foo tolloon di nga ko weesu yow mi am tawfeex luy waxtaan sëñ Aliou Ndiaye mhm. man mi xam sëñ Aliou te sëñ sëñ mi xam na ne xam naa sëñ Aliou mhm. ndax man yàgguma ci moom mais dama ci am tawfeex dëgg la ndax cassette bi mu def muy circulé ci àdduna bépp mhm. da ci naan Sidi ak Masseer ak Ibrahima Ka kon ñu ngi leen sant baax te di ko ñaanal tey di ñaan ñëpp ñu fonk bisam bii di rajo bi nga xam ne amul lu moom ndax nee bisa guddi gi de ku ko fekk di nga ko fekkawaat moom dëgg la alhamdulilah waaw ku fekk guddi kas rajab mm-hmm. xuma lan di kon ku ko yàgg fekk di nga fan la kon foofu laa yam di sant ñëpp di gërëm ñëpp waaw sama baay itam mm-hmm. moom yàggul ci Aliou de defe naa ne euh, man mi maa ko yóbbu ci sëñ Aliou mm-hmm. mun ma man de sëkki ngay wax daal bëgg naa ko gis ma taal sama oto sama papa ak sama yaay ak sama soxna ak sama ñaari doom ñuy seex keroog bi sëñ Aliou ku doon waxtaan ci Cheikh Issa nag la ku Cheikh la keroog bi ñu agsee sama papa dafa daanub jël yuuxu mu ne sëñ axam mii duggal ci néeg bi nga jël mbubb yi jox ko muy turki njaareem akub akub akub grand bubu la ba tey jii benn bi sax maa ko denc dama koy nëbb nag mu ne ko nañ ko jox ne ko lii bis boo génnee àdduna nañ ko booleeg sa bàmmeel ba àjj na ñu màggal ba noppi mu del dellusiwaat ci moom mu joxaat ko suukar paquet suukar yooyu def cinq ni ko suukar si képp koo nga xam ne ñam nga ko sa yoram araamal na sëñ Aliou daal moom nañ xam ni. pàggute fu yàlla la. yàlla daal moom moo ko soob mu indi ko. kon na ko ñëpp xam. kum jur ak kum jurul kuy ab sëriñ ak sëriñ. Mm. nañ ànd fonk te bëgg ko te yaakaar ko te ñaanal ko. jërë ngeen jëf wasalaam. jërëjëf sëñ Sidi joxal ma soxna maam xari micro bi mu mu moom tamit mu am tuuti rek nu mu ñu mën a baaxee ci sëñ